mbay Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Rewmi FM maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di nuyu également képp ku ñu déglu ci Rewmi FM ngay secrétaire général syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation muy SADEF ñu dégg leen ngeen euh, yéglu euh, wax ne di ngeen déposé préavis de grève ndax li ni mel antu na waaw déposé nañ préavis de grève bi ajjuma ñu génn lañu hmm. ko déposé hmm. ci table ministre de publique et du renouveau du service public. Mm-hmm. Euh, plate lu tax nag ñu def ko mooy dañoo bëgg euh, gouvernement du Sénégal jox jàngalekat yi seen gëdd. Mm-hmm. jox leen seen àq ak seen yelleef jox leen seen cër teg leen fu ñu war a teg. Mm-hmm. parce que dañoo constaté que ne enseignants yi dañu sonn. dañu nekk ci ay jafe-jafe te il faut que ñu taxaw leen loolu moo tax ñun ñu jóg danañ déposer préavis bi ginnaaw bu ñu defee taxaw seetlu ci conditions yi nga xam ne moom la jàngalekat yi di nekkee. Mm-hmm. parce que comme niñ ko xamee la communauté internationale à travers l'UNESCO ak OIT dañu élaborer benn recommandation depuis 1966. Mm-hmm. te recommandation boobu day wax ci la condition du personnel enseignant. Mm-hmm. di tàmbalee ci maternelle ba jàll secondaire jaar élémentaire jaar collège bépp jàngalekat bu nekk ci niveau boobu. recommandation bi dafa war a wax dafa wax ne. na gouvernement yi sàmmonte ak yoon. ba teg leen ci conditions yi mucc ayib pour que ñu mën a def seen liggéey ci conditions yi normales. Mhm. mais malheureusement dans notre pays kenn ku nekk xam nga ne saa soo xëyee gis nga ne jàngalekat yi teguñu leen ci conditions yu normales yu leen di permettre ñu mën a def seen liggéey ni mu ni mu waree. Mhm. ndax boo xoolee lii ñuy tuddee abri provisoire mooy ay classes classes yoo xam ne dañ koy rabbe ay géttax. Mhm. ah te loolu déjà mën na indi non seulement du participer au renforcement de la qualité ci njàng bi ak njàngale mi waaye mën na indi jéey ak masiba ci biir ndax bu yàggul rek au Niger benn classe bu ñu ràbbee gattax moom moo tàkk ci kawe xale. Hmm. ba rey fa ñaar fukki xale juróom. Hmm. ñun loolu ñaanuñu yàlla mu dal Sénégal. te bëgguñu muk mu jéey jooju xew fi ba pare gouvernement door jël ay matuwaay pour jëlee fi abri provisoire yi. loolu moo tax ñun loolu dafa bokk ci suñu point. Mhm. nañu xeex pour que abri provisoire yi jóge fi. d'accord nañu xeex également pour que gouvernement bi yóbbu ay table banc yu doy ci classe yi. Mhm. soo ci duggee da ngay yéemu. ay élèves yu toog par quatre am na sax yu ma fekk ñu toog par cinq les tout petits nga xam ne loolu mënul mënul favoriser am njàng bu normal. Mhm. loolu du dëgg du yoon. d'accord ensuite ñu gis ne jàngalekat yi dañ leen di dugal ci li ñuy tuddee daan classe pléthorique classe yoo xam ne presque day mat téeméeri élèves. ab jàngalekat war faa nekk naka la mën a doxee jàngale classe boo duggee sax dafay xeeñ dafay tàng dafay métti dèjà élèves yi ñoom ci seen bopp seen condition yi ñu war a toogee recevoir enseignement bi normalul hmm. waxantuma la jàngalekat bi hmm. pour mu war a taxaw jàngale dèjà loolu normalul donc condition yooyu lay gis ne at mu yàlla sàkk dafay dégradé wu di gën di wàññeeku di gën di bon di gën di yées loolu nag moo tax ñun ñu jóg ne gouvernement du Sénégal jot na mu delloo jàngalekat bi ak xam delloo ko gëdam pour saafara ay problème seen dugg nañ également ci préavis bi wax nañ ne. Mm-hmm. président de la république. na dindi blocage bi mu bloqué ci crédit DMCA yi. ndax moom defu ko fii. Mm. président Abdou Diouf moo jëloon ab décret 1982. mu ne jàngalekatu liggéeykatu Sénégal. Mm-hmm. bépp bu nga xam ne bëgg nga tabax kër. léegi moom état dana la dimbale lebal la ñaari millions. jamono jooju 1982 ku nekk xam nga ne ñaari millions. même bu mënul tabax kërit mën na cee participer lu am doole. Mhm, bëri léegi te dañ la koy prêt boo xam ne niñ la ko lebalee noonu lañ koy fayee du am benn intérêt. Mhm. ñu baree bari di daan ci bénéficier wu. ah président Abdoulaye Wade ñëw fi en deux mille six. Mhm. jël ko yokk ko yokk ko jëlee ko trois jëlee ko deux millions. yóbbu ko cinq millions en deux mille six. ñu rafet rafetlu loolu trop ñu amoon yaakaar bu rëy ci président Macky Sall foog na moom bu ñëwee ci nguur gi ak situation yi jamono yi jafe-jafe yi métti yi day jël fonds boobu. yóbbu o au moins à dix millions. Mm-hmm. mais non seulement yokk ko waaye mu bloqué ko depuis deux mille dix. nous sommes en deux mille vingt et mm-hmm. donc onze ans durant le président Macky Sall bloqué loolu te mu fekkoon fi dama jàpp président bu defee loolu defut li gën ci nit ñi moo tax ñun ne na loolu dañ na lever nañ ko lever. Mm-hmm. comme ça kenn ku déposé woon dossier. ñu woo la jox la sa wàll li nga war a am d'autant plus que da nga koy fay rek. comme bor état di jox di te nekkoon en principe. nañ ko jël jox ko nit ñi. moom préavis bi kañ lay expiré. préavis bi bi nga war a un mois après. Hmm. maanaam douze novembre douze décembre. lu waral jamono ji ngeen toog ba waxtu wi ndax lu muy lu ñuy waaj a dem fin d'année moo tax ngeen di yëglu wala euh, ni jamono ji daal yuuxu yi bëree moo tax yéen nit ñu dégg leen waaw xam nga ñun bu école tijjee hmm. dañoo am aada suñu responsable yi à travers nos différentes sections hmm. dañuy euh, d'abord toppatoo la rentrée ba pare ci biir loolu nag kenn ku ci nekk gox bi nga nekk bu ne mhm. yaa ngi xool di saytu yan condition la jàngalekat yi nekkee yan condition la élèves yi nekkee naka la ah, démarrage année scolaire bi mel mm. bu loolu matee nag ba pare ñu def lël bu mag ñoom ñëpp ñu ñëw kenn ku nekk nga restituer liggéey ba nga defoon ci rentrée bi ak difficulté ya nga gis jàngalekat yi doon ko dund mbaa élèves yi mm. loolu moo tax ñun ñu def ko bu ñu ko defee nag Euh, ci à l'unanimité camarades yi ñoom ñoo ne lii du dëgg du yoon te jot na ñu yëngu yëngal gouvernement bi saafara jàngoore jàngalekat yi. Mm-hmm. loolu moo tax ñu jël bataaxal boobu jëbal ko ministre fonction publique. Mm-hmm. Euh, par rapport ak suñu revendication yi. Mm-hmm. pour que gouvernement du Sénégal ubbi waxtaan ci ñun ak ñun ci point yooyu. sa def bokk ci benn kuréel tey ñu gis ne da ngeen beddeeku lu waral li ni mel. waaw xam nga ñun mom dafa am logique bu ñuy demee. Mm. maanaam ma àndandoo euh, neex na c'est vrai waaye du la tënk-tënk gu nga xamante ne bii heure boo waree doxal sa dox activité nga dox ko. waaw te ñun moom dañoo jàpp ne ñun ba ba ñuy juddu dañoo am benn créneau mooy le syndicalisme autrement et mieux. ñu teg ko ci syndicalisme de développement centré ko sur les préoccupations des enseignants. Mm-hmm. ñun enseignants yi mooy suñu raison d'être saa suñu amee problème. bu lu ñu bëgg ñun loolu la ñuy def. Mhm. comme enseignant yi ñoo nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. bëgg ñun ñu fajal leen jafe-jafe yi yoon bi ñuy jaar pour que mu faju yoon boobu la ñuy teg moo tax ñu déposer préavis bi. Mhm. ndax am na ci jàngalekat yi ñu nga xamante ne ñoom la ñuy dippee jàngalekatu décisionnaire. mais ñooñu cette situation dafa métti. déjà bu ñu nekk en activité conditions yi ñuy dund par rapport ak seen avancement déjà daf leen a ndóolal daf leen andil ay mosiba andi leen ay métit rawatina bés bu ñu demee ba retraité am na ci ñoom ay ñenn benn benn yu nga xam ne jot nañu retraité mais am na si ñu ma xam ay huit mois neuf mois ba dix huit mois ba léegi mën na ko am seen première pension ah parce que enseignant décisionnaire lañ léegi nag ñooñu nag dañoo jóg ñun sa def parce que yéene saafara seen i problème ñoom ñoo ñëw daja ak ñun ñu recenser seen préoccupation jël ko jiital ko comme premier point de notre préavis de grève parce que yéene sumbu xeex pour que gouvernement du Sénégal delloo ak jàngalekat yooyu ñoo retrouver seen dignité loolu moo gën a waral ñuy saafara suñu combat bi. yéen ci lan ngeen sukkandiku ba wax ne enseignants yi kenn joxu leen seen gëdd. mais yow boo boo xoolee Sénégal kay ni muy doxee ak ni gouvernement bi jàppee jàngalekatu Sénégal nga xam ne joxu ko benn gëdd respecté wu ko fulaalu ko faale lu ko benn point benn rek laa la ciy waxal le président de la république moom ci boppam man jàpp naa ne bëggul ay jàngalekat. ah parce que luy avantage loo jàng lu koy avancé loo président yoo xalaatul loolu ndax dañoo def étude président bi mu ñëwee dane ni mu gisee salaire réew mi euh, liggéeykat yi du ko fayekoo dafa indi dafa indi ay li ñu dafa am ay problème d'inéquité hmm. et que moom dana ci jël saafara ah ñëpp di ko déglu président commandité benn étude étude boobu pare ah joxe résultat yi mais bi ñu partagé résultat yi ñu gis ne salaire jàngalekat yi moo nekk ci suuf te recommandation ba étude ba def dafa na nañ ko niveler à partir du bas mu yëg ci kaw. Mhm. kenn ku nekk li sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko par rapport ak sa niveau d' étude par rapport ak sa niveau de diplôme. ah président jël étude boobu moom mi ne woon dinaa appliquer recommandation yi jël ko dugal ci tiroir am na cal kon président bëggalul jàngalekat yi jàmm yéene wu leen jàmm kon noog bëggu leen ah loolu d' abord comme njiiti réew mi bëggul jàngalekat asamaan ah, seen ministre mi <laughs> ba moo tax ñoom lii di abri provisoire jéemuñ ci lenn. ah lii di classe pléthorique yi jéemuñu ci lenn ah conditions yi enseignants yi nekk nekk ay conditions di difficile te jàngalekat bu nga xamante ne bi moom rek mooy seul agent de la fonction publique bu nga xamante ne mën nga toog fukki at doo avance <laughs> te bis bo bis boo amee avancement uh-huh. ay weeri weeri weer ngay toog doo door ko mën a jot wala sax rappel ba ci war da mën nga toog ay at doo doo doo ko jot loolu nekkul lu rafet te beneen agent de l' état du mës a jànkoonteeg loolu loolu moo tax ñun ñu ne jàngalekat yi nguur gi joxuñu leen seen gëdd te dafay dëkk di salfaañe seen ak ak seen yelef loolu moo tax ñun ñu décider aller en action pour que loolu dat ñu dégg leen tamit ngeen di ñaawlu anam gi nga xam ne koppar gi ñu jagleel wàllum njàng meeg njàngale mi noonu lañ koy euh, jëfandikoo lan la lan ngeen ci seetlu. waaw dañoo gis ne euh, at mu yàlla sakk dañuy nattal ministre de l'éducation nationale xaalis bu takku pour mu war a gérer le département du ministère. Mm. alors te ñun ministre éducation jot na ñuy xayma di di maanaam di di di di auditer. Mm. Euh, at mu yàlla sakk buñ ko nattalee nangami milliards. Mm. bu at mi jeexee auditeurs yi ñëw ne ko milliards yooyu noo ko utiliser. Mm-hmm. fan nga ko def lana ak nga ci def su ko defee mu expliquer bu explication yi nekkee lu a ah ñëw bàyyiwaat ko fi bu fekkee ne nag moom am na leneen lu ci sëkk wala mu jaar leneen su ko defee président jéem a jël dogal xool nuñ koy defee. Mm-hmm. man daal jàpp jamono yi ñu nekk nii. ay jot na ñuy doxalee noonu ci gestion ministère de l' éducation nationale ndax mënuñu di natt ay milliards yi milliards chaque année. Mhm. di ko ko jox te abri provisoire yi jógewu fi a ga tax yaa ngi ne xus ci a bi ah table banc yi di gën di manqué ah jàngalekat yi di gën nekk ci ay problème alors ñun loolu la ñu ne mënuñu comprendre kon donc les milliards la kon ban njariñ la am ban jeexital la am te chaque jour jàngalekat dañu nekk ci ay problème loolu moo tax ñun ñu ne vraiment jot na def taxaw seetlu ci ni ñuy gérer les fonds destinés au ministère de l'éducation nationale. ci taxaw seetlu googule sànq ba tey yaa ngi koy tudd muy abri provisoire yi ndax yéen da ngeen am ci xayma tey benn cartographie bu leen di won situation bi euh, maanaam ñaata ñoo fi des comme état deful liggéeyam liñ naan cartographie moom buñ koy def elle national hmm. ndax yàlla def na ne amul benn département booy dem Sénégal tey fekkoo fa abri provisoire hmm. même biir Dakar gii nii alors kon donc loolu déjà problème a ngi noonu. Euh, xayma woon nañ ko ci lu mat juróom benn junniy abri provisoire gouvernement bi di jéemoo ci lenn annoncé woon nañ fi benn année ne programme zéro abri provisoire. Mhm. dem ba na def ko fa affaire bu am doole ñëpp yaakaar ne abri yi jeex na tey gën euh, ne xus ci réew mi. Hmm. loolu nag moo tax ñun ñu ne loolu de dakk na parce que lii xew Niger la ñuy bañ mo xew fii dem ba benn abri provisoire takk ci kaw yi xale ba boom fa ñaar fukk ak juróom. jéye jooju la ñuy bañ mu dugg ci réew mi pour bu ëllëgee ku nekk di daw naan nangam ak nangam ñun dañuy dànkaafu alerter bala jéy di am ndax mhm. bëgguñu musiba boobu dal suñu doom yi ah, loolu moo tax ñu ne nañ ko fi jële tabax classe yi jàngalekat yi mën a jàng élèves mën a nekk ci conditions yi mucc ayib monsieur Sarr dégg nañ leen euh, coow li bëri woon na du ma ne yéen rek parce que euh, amoon na fi benn jamono ñuy wax cinq mille enseignants la ñu recruter euh, tey ñooñu li nga xam ne ñoo ngi doon coow bokk bëri na ci ñi nga xam ne jot nañ seen i OS affecté nañ leen jamono ji dégguñu déggaatuñu leen ci mbir yi yéen ñi syndicat d'enseignants yi dafa mel da ngeen ñu ngi wàcc kay parce que dafa am ñoo xamante ne bi ci ñooñu hmm. Euh, ñu war a ñu war leen affecté demoon ba ba ñu sélectionné leen. Mm. ndax amoon nañ diplôme professionnel. Mm-hmm. am ñenn ñoo xamante ne bi bi ñuy affecté bokkuñu ci. loolu am na nombre boo xam ne ñu ngi koy recensé. pour que ñu porter ko à l'attention de l'opinion pour que ñooñu jox leen seen OS ñu dem. am na ñu nga xamante ne bi moom am nañ ci rafetlu parce que soo xoolee ñi génne woon école normale en deux mille treize. Mm-hmm. amoon seen i liggéey sa gouvernement jëlu ñun porté woon nañ combat bi ànd ko ak ñoom wa tey jii ñooñu jël nañ leen loolu ànd nañ. ñii nekkoon également dans des écoles privées amoon seen. liggéey waaw mooy collectif bi doon yëngu-yëngal. temps voilà ñooñu également ñu ci bari jël nañ leen. waaye mhm. nag am na xam ne ñu ñu nga xam ne fekk naa leen dans la région de Matam ak de Saint-Louis ñu tuddee leen des classes des enseignants des classes passerelles. alors ñoom euh, am na ñenn ñu jël ci ñoom waaye lim bu takku ci ñoom jëluñu leen. te ñooñu pourtant gouvernement du Sénégal daana leen utiliser à travers euh, l'UNICEF wala à travers yeneen bailleurs yuy intervenir. Mhm. ñu tuddee leen des classes professionnelles. Mhm. kon comme comme nit ki yaa ngi koy employé muy liggéey kon bu jël jotee moom nga war a njëkk a jël bala ngay tànn keneen loolu nag ñooñu am ñoo xam ne des nañ te ñun le combat dañ koy porter pour que képp ku am diplôme doon nekk jàngalekat di jàngale. Mhm. ñu jël pour que jàmm na ñooy. Mhm. ñoo ngi waaj ay élection te xam nga ne njàng meeg njàngale mi mënoo tudd élection ci réew te doo ci bàyyi xel euh, tey ji lan moo si euh, yéen euh, seen tiitaange ci année gi jëm. waaw xam nga élection moom dafa bokk ci li ñu naan le calendrier républicain. Mm. waaw comme république lañ nekk euh, dañoo war ni muy kenn yi ko samp di doxe noonu ñu koy respecté mm-hmm. ba tax na buñ waree def élection nañ ko def te buñ koy def également nañ ko def ci jàmm ak salaam waaye day am ay enseignants yi nga xam ne ñoom dinañ wàcc ci terrain bi te li waaw du ñàkk parce que enseignants yi encore xam nga du enseignants yi rek parce que mm-hmm. képp ku nekk citoyen dans ce pays là sa gox tànn la pour que nga mën a fa jiite nga bokk ci ñi ñu war a jiite foofa mm-hmm. jàpp naa ne la lay la yoon may ca jamono jooja bu jotee mën nga ko sàmmonteeg moom ba def ko te du ci wàññi dara te yaakaar naa ne ay jàngalekat yi boo leen xoolee ñi ci nekk candidat bariwul sax parce que bu fekkee am na euh, ñi nga xamante ne peut-être ñoo nekk ci liste yi peut-être am na ci nekk mais ñooñu jàpp naa ne seen euh, permission boobu ñuy am pour battre campagne aussi. Mhm. Euh, législation scolaire bi encadré na ko te l' administration scolaire dana si jël matuwaay bu nga xamante ne bii du am benn jéeya. par rapport ak euh, li ñu waroon a ci seen wàllu cours yi. d' accord monsieur Sarr Mbaye Sarr ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi lay sant di la gërëm.